ci teewaayu kii di sous fee bu ndaam la ñu amalee mbile ndaje loolee nag xool naka la ñuy def ba tëral ay doxalin jëm ci programme waajtaay weeru koor bi ñuy amal fële ci résidence Seexul Xadim niki ci àjjuma ji. comme ñu ñëwoon fii woote fii réunion ak ñoom euh, ñu wax ñu seen i bëgg-bëgg service de aussi jël seen i engagement donc pour euh, jàppale donc euh, daayira bi ci li nga xamante ni moom la ko sëriñ bi sant. te am nañ yaakaar ne loolu incha allah li ñu ko daan defee bu nu mu ti ren bi aussi euh, boo moytul sax mooy raw waaw donc euh, loolu mooy li nga xamante ne bii mooy engagement yi service étatique yi. ñi nga xam ne nii ñoom lañ dénk wàllum doxalin wi ak organisation bi ci wàllu Hizbut Tarqiyyah sàkku nañ rek ci service yi ci mel ni service d'hygiène police ak ñi ñu dénk wàllum paj mi fii ci Touba waaye itam sapeur pompier ngir ñu dugal seeni loxo ci mbir mi. waaw programme bi rek weesu wut li nga xam ne moom la ñu séenu ci waa nguur gi war ñu ko jàppale ci wàllu sécurité ci wàllu hygiène ci wàllu médical nañ ñu mën a taxawoo ndax mbooloo dana fi daje. te ñu war a respecter li nga xamante ne mooy mesure barrière yi nan lañ mën a fexe ba loolu mën a am nan lañ mën a fexe ba courant bu doy am nan lañ mën a fexe ba euh, lañ bëgg ci wàllu communication fu waaye nekk moo xam nga nekk ci biir dëkk bi ci biir kër gi wala bitim réew foo mën a nekk mën a seetaan mu mucc ayib ñu waxtaanee loolu ñu tënk ko yàlla dogal na kon jawriñ daara ji xamal ne xamal ne liggéey boobu ni ko defee kuréel yi nga xam ne ñoo ko war a def tamit mu tënk ko leeral ko kon ci gàttal daal moom jox nañ ko ndigal waaye bañ ko joxee ndigal xam na ne am na ñu ko war a àndal ci wàllu yoon ñooñu nag sàkku na kenn ku nekk seen wàll ñu jël ko ngir mën ko matale. suñu sukkandiku ci chef de service yi nga xamante ni nii teew nañu la ñu jot a jukki moo di ne dégg nañ bu baax soxla yi nga xamante ni nii jukki nañ ko ca moomu leen ndaje ñoom ñu lee biral ne daañu def rek seen kem kàttan ba lépp loo xamante ni nii namm nañ ko ci yooyu le programme ñu mun ko wéyal ci anam ya mu waree.